moo tax ma may lancer message képp ku bokk ci parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor ne la ci fii ñu jëm nga xamante ni nii parti bi ñu yore dañ koy organiser ci fii ñu jëm nga xamante ni parti bi ñu fa nga war a positionné wu nga positionné fa ci ñu jëm nga xamante ni parti bi dafa soxla ay sage mooy nit ñu am expérience nit ñoo xamante ni am nañ jaar-jaar nit ñoo xamante ni nit ñi nawloo nañ leen nit ñoo xam nit ñi fonk nañ leen nit ñoo xamanteni nit ñi jox nañ leen cër ay model lañ ñooñu nañ topp ci doyen Malo mi ñu organiser parti bi nga xamanteni ni nii moom lañ bëgg organiser kon message bi leer na sous peu danañ commencer activité yi nga xamanteni ni nii am na ñu ko tàmbale woon mais bi yoon dañ koy accélérer yàlla def na am na ñu am xam-xam ci politique nañu bari am nañu yéene ànd ak Pape Modou Fall mais expérience politique bi ñu war a am xamuñu ko seen xol la ñuy topp seen bëgg-bëgg la ñu topp seen yéene la ñuy topp te politique dafa laaj yoon. dafa laaj organisation. dafa laaj méthode dafa laaj démarche dafa laaj expérience. nit bu duggee ci lum xamul day laaj ña ko xam ñu expliqué ko teg ko ci teg leen ci yoon ñu xam. Olof Ndiaye sax nee na ku la njëkk ci néeg bu lëndam moo lay wax fi ngay toog kon bu amee ci suñ

créer cellules surtout donc désormais tout ce créer cellule Man nga contacter ñi nga contacter ñu dem installer cellule politique du ay groupe WhatsApp politique du nek réseaux sociaux politique laaj organisation parti politique du éducation nek ci des réseaux sociaux di xiro, di ngaayo, di Lolu amul sens tardel li fulla ak fayda moy désormais képp koo xamanteni paré nga manifesté wul ñu jël ce tour change yi ñu wax ak ñi nga xamanteni ni yoré structure yi ñu tégon len fi je peux citer Birane wadj mustapha Niang ak mbay Niang ñet ñooñ nga xamanteni bama joggé ma jógee lañ jóg ñu and ak ñom ñu jël liggéey bi liggéey ko bu doonee ci bir djourbel ñu def ko bu doonee ci bir département bi ñu and ak ñom ñoom message bi lancé naa ko képp koo xamante ni bëgg ngaa bokk parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wër demal jaay say carte wax ñu installé la sa cellule. képp koo xamante ni nag nekkoo ci yoon woowu xamoon nekkoo ci yoonu parti képp nekkul ci yoon boobu xamal nekkul ci yoonu parti parti mbooloo la parti ay nit la parti da ngay dem ba am légitimité boo xamante ni nii teg su parti bi ñoo la koy jox nga installé say cellule def say section génn dem sa fédération mën dem niveau national donc loolu mooy structuration